mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant dal leen jàmm ci suñu jotaay le point corona fii ci télévision Futur Média ñu ñëw tey ni ñu koy defee bés bu ne fas yéene jàngat njeexital lu feebar bi am ci suñu dundin ci suñu nekkin di fi dalal ay gan yoo xam ne dañ leen dellowaat kàddu gi ndax lu jiitu ñoom la waa kër docteur laati tey ñoom laati sax laay wax ci ay pàcc ak yoo xam ne ni dina soxal nit ñi dinañ ci ñëw léegi lu ko jiitu waa kër docteur kër ministère de la santé à travers le porte-parole du comité du directeur de cabinet ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr def na situation bi tey test yi ñu yaatal ko tamit lool euh, bi ñu ko yaatalee aussi am na juróom-ñetti fukki test ak ñaar yoo xam ne dellusi na ci ñun ne doomu jàngoro ji nekk na ci ñoom yokk ci lim bi nga xam ne nii moo fi nekkoon kon tey ñu jàpp ni ñi doomu jàmboro ji nekk ci ñoom tollu nañ ci juróom ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk 970 gis ngeen ñu ngi dàqe junniy cas junni nag baar symbolique la njortuñu woon benn yoon ni dinañ fa mas a yegg waaye ñu ngi koy dàqe ba tax na tey Sénégal it yàlla di def am na ñuy wér ndax ñiy wér ñooñu seen lim léegi takku na tollu na ci ëpp na juróom benn téeméeri nit am na ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan fan yi nag xaw naa taqar naa si tuuti ndax amul bés bu ñuy xëy te amul ko ci wàcc lim bi toll na ci fukki nit ak juróom yoo xam ne ni ñàkk nañu seen bakken am na ci ay cas yoo xam ne nag moo jaaxaloon nit ñi ñu gën a féete ndaw lañu fanweeri at ak juróom ak lu teg tuuti dinañ ci ñëw ci jàngat yi table bi fala yem ndax situation Sénégal jarul ñu koy méngale ak situation yeneen réew yi ngeen di gis ci sama table bii ndax du Amérique du France du Espagne du itali foofu toj na bu yàgg jàngoro ji def na fa la mu fay def ëppoon na leen loxo la fay xew yàlla na continuer di ñu ump mu ni jàngoro joo xam ne nag ñu leen koy fàttali li ñu ciy musal di musal askan wi ku ne mën na ko du feebar boo xam ne dañuy wax ni borom daraja yi mën nañ cee mucc parce que seen poche diis na déedéet li ciy musal nit mooy raxas suñuy loxo ba mu set saay bu ñu génnee balaa ñu duggaat ci kër gi bu ñu jógee ci loolu yitte yu bari yi ñu wàññi ko ku am yitte juróomi yitte ci bés bi boo ko dajalee xëy na def ko benn mën nga koo dox dellusiwaat ci kër gi couvre-feu bi mu ngi fi pour yitte guddi gi loolu yëpp pour bañ wàllante bi bari parce que loolu moo ñuy sauver waa kër docteur dañoo ne faj mi dana leen jafe bu ñi mu dal baree donc loolu xeex bi ci njëkk mooy fexe ba ñi muy dal waay waay ñu jàppalante mu bañ a bëri suñuy gan tey waa kër docteur lañu ñu am mbégte lool di fi dalal professeur Ousseynou Ka di gériatre gériatre bu ngeen ko déggee mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy toppatool suñu mag yi professeur Ousseynou Ka bu ma waxee loolu rek lu gàtt la dalal jàmm euh, jërëjëf euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax et puis di la remercier vraiment si invitation bi di ñaan aussi ci weeru koor gi yàlla dàqal ñu vraiment euh, maladie bi bi bi nga xam ni moo tax ñu ñëw toog fi feggoo yow ci waxtaan wi jàkkaarloog yow di loo xam ne nii kat fii laa ko sax xame ndax ñun bañ leen fii woo njort bu rafet rek la amoon ci dajale fi ay borom xam-xam professeur Pape Ibrahima Ngom chirurgien dentiste. waaye ma wax ko yéen ñaar yéen a dalloo même bés même promotion ci université Cheikh Anta Diop dalal jàmm professeur Pape Ibrahima Ngom. ñi ngi lay euh, delloo nuyu monsieur Cissé di profité ci occasion bi tam di nuyu seen téléspectateurs yëpp. Euh, di ñaan comme euh, ni ko euh, sama xarit professeur Ousseynou Ka waxee. mais bu leen ma ko defal affaire de xarit dañuy waxtaan tey xamante wu leen ñu waxtaan rek. d'accord tout à fait alors di profité vraiment di di ñaan ci weeru koor bi yàlla jëleen dimbale ñu jëleen ñu fi mbas mi te ñu bari bañ cee loru wax dëgg yàlla déjà fukki nit ak juróom rek lu bare bare bare la mais ñu ñaan lim boobu lim bu macabre boobu comme ni ñu koy waxee ci tubaab. lim boobu yem foofu euh, waaw dëgg la <laughs> Ousseynou Ka sama xarit la woon ñu ngi duggandoo université peut-être euh, faculté de médecine aux environs de dix-neuf ans et demi jëm vingt ans Euh, voilà on se connaît depuis lors et on tey ñu tase fii tey par hasard. Mhm. jërëjëf justice. dañoo tànqee ci kuréel goo xam ne dañu ko taxawal muy observatoire national des sciences et technologies en innovation lépp li ko tax a jóg mooy riposte bi ñi nga xam ne moom la ñuy indi ci Covid 2019 bi boroom xam-xam yu bari nekk ci. vraiment ci domaine yu ne pour ñu ne dañuy tànk seen xam-xam. pour teg ko ci riposte bi bu weesu wàllu waa kër docteur lan ak lan ak lan ak lan la ñuy tànkee ci observatoire boobu pour ne danañ ko yokkee wàllu xeex bi. waaw observatoire euh, boobu ñuy wax observa observatoire national. des sciences, des technologie de l'innovation pour la riposte au Covid-19, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation moo ko teg daf ko teg pour ñu euh, di leen xelal di leen xelal wante aussi di toog di xalaat li nga xam ne mooy suñu liggéey li ñuy def toujours di xalaat euh, yenn question di poser wu yenn question yoo xam ne dañ ci war a wut ay ay réponse réponse bi nag ci question yooyu recherche lay doon parce que euh, comme ni nga ko waxee léegi observatoire boobu ñi ko ñi ko constitué ay jàngalekat lañu ay enseignants chercheurs université université Sénégal yëpp hmm. am na ay aussi des acteurs de la société civile am na aussi euh, beaucoup d' autres personnes elle est assez ouverte mais en tout cas c'est sous l'égide euh, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation lan da ngeen yaakaar ni li fi mm-hmm. nekk matewul ba ñu war leen a yokk doole wala dafa am fànn yoo xamante ni eh, laaluñu ko ci comité bi nga xam ne nii moo fi nekk di taxawu riposte Covid 19 bi. déedéet euh, certainement mettre ñu ko en place parce que affaire yi matewul dañ ko mettre en place parce que fii Sénégal ñun ñëpp yow mii ci nga bokk ay soldaaru Covid ay soldats contre Covid 19 lañu. Mm-hmm. donc ministère yëpp dañu jël. ci li nga xam ne moom la ñu mun moom la ñu mun a liggéey ñu di ci euh, songe mbas mi wante du question fii dafa matul wala fii dafa matul ministère bu rek na ministère de l'enseignement supérieur de la recherche noonu noonu noonu la def ñun ñii ay bii appartenant la ñu sax mun naa la ko mm-hmm. wax pour ñi nga xam ne ci ñun ay dañuy liggéey ci santé parce que dañu bokk ci ministère de l'enseignement supérieur de la recherche de l'innovation en tant qu'enseignant chercheur bokk ci ministère de la santé et de sociale en tant que euh, personnel soignant donc euh, affaire bi moom lépp ci benn gaal gi la nous sommes daal le dans ñu ngi ci benn gaal gi daal comme ni ñu koy dafa am lu ñuy tàmbalee ji san xëy na lu bees la wala lu situation bi moo ko waral. Mhm. Euh, apartenance enseignement supérieur yéen professeurs yi nga xam ni nii enseignement supérieur ngeen bokk c'est vrai mhm. rawatina bokk ci santé. Mhm. est-ce que amul euh, problème positionnement pour fan ngeen. bëgg a féetale seen bopp dëggantaan parce que bokk ci ñaar yi ngarale bi léeg-léeg day xaw a sax jafe ci kilifteef <laughs> professeur dañu ngi si fan yi mujj yi am na ay fipp wane nii woy enseignement supérieur la ñu bokk kilifteef gi fële la réalité <laughs> réalité bu fi nekk la professeur Ousseynou Ka merci merci Cissé de ci question boobu c'est vrai que euh, nit moom dafa war a poser tout le temps des questions et je pense que pour euh, avant may démarrer c'est pour remercier encore vraiment waa ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, et de l'innovation pour observatoire bi ñu mettre en place toute l'équipe ak ki koy diriger di remercier aussi ministère euh, de la santé parce que aussi foofu am na équipe boo xam ni bu boo xam ne dafa nekk ci biir la lutte contre cette infection mooy wax observatoire bi en fait normalement observatoire bi opportunité la woon pour pour maladie bi dafa nekkoon une opportunité pour que ñu créer ko mais observatoire moom de continuer je pense que day continuer ba ba ba ba. la rek mais. waaw waaw vraiment c'était c'était ça exactement. parce que parce que ci biir observatoire bi am na cinq juróomi kuréel am na kuréel boo xam ne mooy toppatoo affaire clinique c'est-à-dire que ay ay feebar nan lañ koy fajee nan lañ koy war a jël en charge nan lañ koy hospitaliser. Mm-hmm. am na kuréel boo xam ne c'est la santé publique moom du toppatoo uniquement benn nit. mais day xool sur si au niveau de la population lan mooy problème yi et nan lañ koy remonter nan la ñuy indi ay ay ay solution am na euh, benn kuréel boo xam ne c'est la société par exemple xam nga feebar bi dafa indi beaucoup de problèmes et des problèmes vraiment de société mhm. mais aussi des problèmes économiques xam nga yaa wax léegi avant ñuy ko nga naan ma confinement bi est-ce que mën nañ ko lever wala parce que am na ñoo xam ne sonn nañ mhm. alors que ci observatoire bi am na ñoo xam ne seen xam-xam yëpp ci affaire économie la dañuy gis sax ni feebar bi beneen bi nag c' ah. ay euh, aspect juridique parce que feebar aussi day poser aspect juridique muy mm-hmm. wax rek observatoire bi xam nga souvent ñun peut-être de façon générale on fait beaucoup de confusion entre ce qu'on appelle la santé et le médical mm-hmm. le médical mooy man Baba euh, docteur et cetera infirmier yi ay euh, médecins yi ay médicaux lañu mais la santé dépasse le cadre médical la santé dafa nekk parce que pour nga man gérer santé d'une population il faut nga xam déterminant de la santé yi mhm. mais malheureusement nag ministère de la santé dafa nekk au bout de la chaîne imagine ma mën naa la jox ay par exemple fa fekk yow da ngay tux yaa ngi mhm. tux ba feebar mhm. xam nga yow yow yaa jël sa sago nga tux mais soo amee feebar mais da nga naan ministère de la santé woy fii amuñ ay écho ay ay scanner woy man mënuma def lii mënuma def lii fekk pourtant la cause yow yaa ko s'il y a un accident de la circulation xam ministère moom toppatoowul ay affaire mhm. accident de la circulation mhm. mais lan la def ñu ne oui amul ambulance nañu woo mhm. ministère de la santé c'est que santé bi médical bi dafa nekk au bout de la chaîne malheureusement nag moom moo um ëmb yëpp c'est pourquoi une épidémie comme li ñuy wax nii c'est pas uniquement problème médecin mais problème parce que suñuy wax confinement par exemple mais du duñu wax ni docteurs yi taxaw leen ci mbedd mi ngeen seet euh, kan moo kan moo kan moo takk masque wala déet mais hmm. loolu xam nga kan lañ ko jagleel mais c'est le ministère de de de de kii quoi nan appelle ministère. Euh, euh, de l'intérieur hmm. mais c'est que ni ministère de l'intérieur aussi day participer ci lutte bi donc c'est un loolu moo tax ma ne il faut que qu'on se départisse de l'idée que rek suñu waxee santé rek ñu ne c'est purement médical mais hmm. la santé elle est extrêmement globale et ñun ñëpp dañ ci war a bokk famille bi dañ ci war a bokk communauté yi dañ ci war a bokk religieux yi dañ ci war a bokk ainsi de donc loolu vraiment loolu mais nag observatoire bi nag vraiment ñëwul pour euh, nekk en concurrence dafa ñëw pour accompagner le ministère parce que day def ay recherche parce que xam nga luy am solo mooy que sooy defar politique nga basé wu sur des faits nga ne ah ma de maa ngi defar li waa chercheurs yi def nañ benn recherche lii lañ ci trouvé xaar ma def sama politique nag pour que man pour que mu mën a dëgër donc loolu mooy loolu mooy vraiment le rôle le rôle observatoire bi. su ñu wax confinement déconfinement activité yenn activités yi il faut que ñu mën a xam exactement fan lañ koy fan lañ koy mën a wéer. te dañoo gis ni feebar a ngi nii yéen ñaar ñëpp pour la première fois. waa Kër Docteur c'est vrai Kër Docteur souvent li ñuy bëgg mooy nit ki ñëw ñu faj ko. mais pour la première fois waa Kër Docteur ne société bi yéen la ñu dénk solution bi fexe leen boobu leen feebar. est-ce que loolu yokkul ci complexe euh, complexifier encore problème bi c'est-à-dire waa yi ñu yaakaaree faj. ñoom finalement dañoo delloo solution bi société bi gis nga ko ba cas communautaire yi yaakaar nañu ci communauté bi la ñu ko war a régler. pour que law bi bañ a am. ñoom ñu bañ a dépasser pour mën a euh, yëf yi yëf yi mën faa yem. Euh, man li ma la mën a wax ci loolu mooy loolu du doonul lu bees. fépp bépp feebar bu am rek. normalement euh, communauté bi dañ ci am rôle rôle bu am importance nañu bàyyi Covid 19 ñu jël par exemple ay maladies cardiovasculaires. Mmh. maladie cardiovasculaire euh, docteur yi suñu sañoon du ñu xaar ba nit am maladie benn maladie cardiovasculaire am AVC wala mu am hypertension artérielle wala leneen door a ñëw lay tax doo am euh, maladie cardiovasculaire ñi ngi koy wax nit ñi bës bu nekk. dafa doon ni rek te nit ñi ñu ngi koy jëfe xëy na wala jëfewuñ ko en tout cas mesure de prévention yi ñu ngi koy wax. dafa doon ni euh, Covid 19 euh, dafa siiw parce que maladie infectieuse la. bu gaaw a propagé wu. Euh, gaaw a wàllaate moom moo tax mu siiwee noonu mooy mesure de prévention itam siiwee noonu mais mesure de prévention pour feebar yépp la am man mi nekk dentiste nii pour wax waxu dentiste suñu sañoon. du ñu gis nit ku ñëw ne sama bëñ dafa bënn fajal ma ko parce que xam nañu nu ñuy def pour sa bëñ bañ a bënn xam nañ nu ñuy def pour mm-hmm. pour sa yàqu bëñ yi bañ a yàqu pourtant ñu ngi koy wax nit ñi toujours donc delloo nañu loolu rôle boobu communauté bi parce que fa ngay toog sa kër jël sa brosse à dents di nettoyer say bëñ Euh, dañ la ko sant euh, docteur bi nekkul foofu te soo ko defee ni ñu la ko sante doo am donc toujours communauté bi dañ leen mus a impliqué ci loolu. xëy na nag euh, bu ñu jógee ci lii nit ñi dinañ gën a yeewu ci. Mmh. docteur yi li ñuy wax fagaru docteur yi li ñuy wax ni. du caaxaat dañ ko war a jël. ñu gën cee far ñu gën cee farlu. docteur Pape Ibrahima Ngom professeur Pape Ibrahima ñu des ak yow. ci mmh. dentiste chirurgien dentiste nga. Mmh. dañoo gis laata feebar bi di yegg si sax ci yeneen réew yi nga xam ne feebar bi dugg na fa ba def vraiment jéye yoo xam ne yàlla nañu ëmp parce que mm-hmm. loolu xajul ci ñun mm-hmm. dañoo gis ni ci spécialité yi xam ne nii ñoo njëkk a nekk à risque sax mm-hmm. bu weesoo faj bi ñuy faj nit ñi ñoom ñu gis ni ñoom la ñuy njëkk a wàll ci seen exercice parce que la ñuy liggéeyee la te xeet bu feebar bi ni muy wàllantee ci toq-toq yi ñuy wax fii ci Sénégal situation chirurgien dentiste yi est-ce que am na exposition particulière feebar bi indi na jafe-jafe ci seen i liggéey. Uh-huh. est-ce que sax malade yi ñu ngi sañ di ñëw di consulter ba léegi parce que dañuy wax ni structure sanitaire yu uh-huh. bëri malade yi daanaka dañ koo daw ragal ni. Uh-huh. bu ñu demee leneen fekk leen ci. waaw dama bëggoon a dellu si ci li nga wax ne ci profession médicale yi ak non médicale d'ailleurs euh, chirurgien dentiste moo ci gën a exposé parce que xam nga fi mu nekk nii euh, booy wax ak nit. masque par exemple c'est obligatoire. dafa obligatoire actuellement dafa waroon obligatoire depuis euh, day war a sol masque mais ñun ñooy ñi nga xam ne ki ñu war a faj bu ñu jàkkaarloo moom ñun dañu yore suñu masque mais dañ koy wax yow dindil dindil sa masque. Mm-hmm. donc loolu moo tax ñun nu sommes les euh, liggéeykat yëpp ñun ñoo ci gën a exposé euh, danaa la expliquer ak fi mu nekk nii malade yi bareetuñu lu ñuy dem ci dentiste yi mais nag. bu fekkente ne peut être ñàkk xam xëy na daf ci bokk wante euh, cabinet dentaire yi ñi ngi faj ñi ngi jël ay urgence mhm. parce que urgence bëñ buy metti loolu la ñuy wax urgence douloureuse mhm. mënul xaar mënul xaar mhm. euh, gémmiñ gu neew yi kanam gu neew yi mënul xaar da nga war a dem ci dentiste dentiste yi dañ la war a faj léegi nag euh, ci faj boobu ñun dentiste yi xam nañu lan la ñu war a def pour mun lañ mun la faj te duñu jël risque yow du ñu jël risque pour yow d' parce que yaa ñu mhm. gën a intéressé ñun suñu malade ñoo gën a intéressé mais du ñu jël risque pour ñun aussi mhm. du ñu jël aussi risque pour malade bi ñoo xëy na ci sa ginnaaw loolu dentiste si ñu ngi koy def euh, soo bëggee xëy na dinañ ci dellu waxaat ci euh, mesures yi ñuy jël yi nguur gi jël mhm. voilà euh, mun nañ ci wax directement gis nga ñun dentiste yi déjà dañu mus engagé ci sa ko lu ñuy wax xeex pour wala te feebar bañ am ci cabinet dentaire dafa bokk ci suñu liggéey. dafa bokk ci li ñuy jàng bu ñu génnee di commencé liggéey tam dafa bokk ci suñu liggéey soo musee dem ci dentiste soo seetloo dentiste bi ñun dañu mës a sol masque. tout à fait ñun dentiste dañu mës sol gant moom la ñu mës a sol gis nga visière yi nga gis nit ñi di ko yor nii léegi ñun dañu mës a yor suñuy visière. Mm-hmm. Euh, ñun suñu matériel dañ koy mës a stériliser ak autoclave waxuma la euh, Covid sax. mais prion sax nga xam ne yenn chaleur sèche yi mënu mënu koo rey ñun dañu yore équipement ci suñu cabinet yu ko mën a rey même dans les dans les dans tous les du Sénégal y compris les cabinets publics donc ñun loolu dafa mës a bokk ci suñu mbir wante bi affaire bi ñëwee nii euh, mbas mi ñëwee euh, Covid 19 bi doon euh, benn feebar bu spécial parce que dafay gaaw wàllaate ndax ni mu gaaw wàllaate le 2 la Sénégal njëkk am le 2 mars le Sénégal njëkk am kaawam ñun le 19 mars la ñu ministère de la santé woo ministère de la santé dafa dajale organisation professionnelle yëpp euh, euh, association nationale des chirurgiens dentistes association des femmes chirurgiens dentistes du Sénégal euh, l' association des prothésistes dentaires l' association des assistants dentaires woo organe de régulation bi nga xam ne mooy réguler profession dentaire ci Sénégal muy ordre national des chirurgiens dentistes woo ay experts expert yu ñeenti enseignant chercheur ñett ñi bokk nañ ci observatoire bi ma lay wax ni ñu ngi fa woon ak ay waa ministère ñu toog ñu ne léegi dañu bëggoon ñu toog benn bësu lëm pour wax lu ñu war a def à partir de maintenant ci cabinet dentaire yi bañ ko defee dañu génne benn protocole bu ñuy wax protocole Covid 19 en odontologie protocole boobu ñu fexe dentiste yépp ci Sénégal jot ko mais yemuñu foofu. dafa am euh, benn euh, benn document bu ministère euh, génne bu ñuy wax procédure ay procédure opératoire normalisée mhm. yoo xam ne fukk ak juróom-benn la daf ci am juróom-benneel bi pour dentiste si kese la pour wax danti si nu ñu war a def par rapport ak Covid 19 par rapport ak feebar bi voilà loolu daal laa la bëggoon wax. lu ñu leen yokkal ci li situation bi nga xam ne moom ngeen doon dund ci mesure yi nga xam ne moom ngeen doon def te ngeen renforcer ko. waaw lu mu ñu yokkal ci situation euh, bi ñu gis c'est euh, question bu am importance la bu njëkk dentiste mu doon ci hôpitaux yi wala mu doon cabinet dentaire privé da nga daan am salle d'attente mhm. benn nit ñaari nit ñetti nit ñeenti nit juróomi nit fukki nit ñëw toog ci salle d'attente bi di xaar dentiste bi gis leen loolu par exemple dañu ne loolu mënatul mënatuñu ko mënatul nekk parce que bëgguñu nit ñi di fekkante foofu mhm. parce que comme ni nga ko xamee rek euh, fi mu nekk nii Sénégal benn nit bu nekk man hmm. yow euh, professeur hmm. Ousseynou Ka mun na nekk euh, ku ku yore doomu jàngoro ji hmm. bëggatuñu nit ñi fekkante donc cabinet euh, de salle d'attente yi du ñu fekkante ba pare cabinet dentaire bi boo ciy dugg il faut nga am rendez-vous il faut ñu dugal la ci cabinet bi du yaay du ñëw dugal sa il faut ñu dugal la ci. il faut ñu def loola solution hydroalcoolique loolu daawuñ ko defloo suñu maladie. systématiquement. ak yeneen mesures yoo xam ne ni mun nañ ci dellusi yoo xam ne ni dañ ko jël. pour pour éviter loolu mun naa ko détailler vraiment quoi. il n'y ñu baax na ñu wax ni ñi nga xam ne ni ñoo am feebaru bëñ nga xam ne dafa metti mhm. surtout bu urgence amee. Mhm. ñooñu ba léegi ñoo ngi leen di mën a toppatoo muy ci public muy ci privé bi. voilà loolu dinaa la ci leeralal bu baax a baax muy ci public bi muy ci privé bi ku am urgence dentaire te urgence dafa bari mun naa la ko tasal aussi. Mhm. ku am urgence dentaire danañu la faj. nanga dem fa nga daan faju ci sa dentiste nga dem ci moom mu faj la bu doon ci public ngay dem nga dem si moom ne ko dama am urgence euh, mu faj la urgence yi dafa bari mettit wax naa la kenn mënu ko fanaan mhm. mu kenn mënu ko nekk moom di di ko continuer parce que douleur mhm. alerte la mhm. boo amee mettit ci sa yaram rek mu ngi lay wax am na luy waaj a xew mi ngi mel ni nga teg sa loxo ci lu tàng rek da nga koy teggiwaat parce que tàngaay boobu lekk mettit boobu moo lay wax ne boo fi bàyyee sa loxo mu mu mu mu yàqu euh, douleur boobu alerte la boo ko amee war nga ko yëgal dentiste boo amee lu neew yi war nga ko yëgal dentiste am na ay aussi ay urgence traumatique mun nga am accident daanu ci mhm. scooter wala nga accidenté sa euh, dara damm sa bañ damm wala mhm. sa yaqu mâchoire damm mhm. euh, am na ay urgence tumorale mun na am loo xam daj nga jékki-jékki daj ci sa gémmiñ loo xam daawa ko ci daj mu nekk ni lu gonfle mu nekk tumeur suñ ko yéexee gis mun na indi beneen problème am na aussi ay urgence infectieuse mun nga am cellulite euh, sa ba ñu metti ba mu néew yi am na néew yi yoo xam ne mun na dem ba nga xam ne dalay tere yi sax bu hmm. dentiste intervenirul mun nga mun nga ci dee te dentiste bi ni muy intervenir mooy inciser ab euh, par exemple cellulite boobu mun nga ko wooyee abcès euh, génne li li li ciy nekk dëtt bi ciy nekk pour nga mun a noyyi soo soo ko deful da ngay dee donc loolu urgence yooyu ñu ngi ko continuer di ko gérer par contre li ñuy wax soin confort Mm-hmm. soin confort nga bëgg ku la weexalaatal say bëñ ak ku la mm-hmm. bëgg a détartreek mm-hmm. ay nettoyer ak yeneen façon soin confort euh, loolu bokkul ci urgence loolu dañuy ñaan nit ñi ñu xaar ba ñu passé lii ñu door a dem toppatoo ji loolu di ko balaa nga naan naam ne fa comme ni ñu naan naam ne fa <laughs> te puis aussi dañuy bañ euh, cabinet yi surchargé su ma la nee euh, par benn nit la ñuy gis benn dentiste xëy na benn nit lay gis ci waxtu wi mais ci waxtu boobu day gis nit ki 30 minutes faj ko 30 minutes 30 minutes yi ci des daf koy jël pour désinfecter salle bi du ñu woo service di d'hygiène mhm. mais dañu yor suñu équipement bopp yu nga xam ne mu doon ma Samba mu doon ma Demba danañ jël équipement yooyu ñu nettoyer foofu dañuy jëlaat moitié temps bi moitié une heure bi pour désinfecter foofu pour que ki ci topp bu ñëwee tëdd fa muy tëdd euh, du du du am benn risque pour affaire boobu dal ko foofu professeur Ousseynou Ka <laughs> euh, tey li tax ma gën a sawar dañoo jukki rek di ci observatoire vraiment mu tombé ñu am ñaari profil yi <laughs> mais ñaari profil yu intéressant lañ parce que chirurgien dentiste bi profession bu exposé la mhm. buy continuer et puis urgence su mettit defe naa ni ku mës am bëñ xam nga ni urgence su mettit bëñ moom yàlla nañu ëmb <laughs> euh, professeur Ousseynou Ka gériatre la gériatre bu ñu ko waxee ma fàttaliwaat ko mooy ñuy toppatoo mag ñi vraiment troisième am na ñenn ñi sax ñu ne léegi eh, le grand âge dañoo nekk ci feebar boo xam ne nee nañu ñi mu gën a yàpp wala ñi muy gën a lottal mooy ñu mu fekk dara ci ñoom mm-hmm. ñu toogaale woon feebar mm-hmm. walla ñuy ay mag ba seen kàttan wàññeeku na yéen ci wàll woowu lan eh, ngeen di taxawoo ñi nga xam ne ñooy seen i patient après ñu ñëw nag dëggantaan ci stratégie nationale bi nga xam ne moo fi nekk merci donc euh, xam naa question bu am solo la parce que à chaque fois suñuy waxee infection bi rek dañuy xalaat ci mag maintenant peut-être que peut-être pour ma pour ma ñëw tuuti rek ci li sama euh, mon ami li mu wax ci ci ci ci ci communauté. Mhm. mais je pense que li ñu war def c'est-à-dire que santé bi mënatul nekk ci hôpitaux yi mënatul nekk ci dispensaires yi mënatul nekk ci centre de santé yi santé bi communauté bi ñoo ko war a jël en charge. et d'ailleurs même à l'université Bambey ñu ngi jàngal lu ñuy wax santé communautaire. c'est-à-dire que. recevoir nañ leen fii. waaw c'est-à-dire que da ngay wax communauté bi ngay nga élever seen niveau de con jox leen ay xam-xam pour que ñu man aar seen bopp pour que ñii di mën a dem hôpital mu mën a néew mais su ñëpp demee hôpital. aucun pays du monde mënul mënul mënul mënul mhm. mënul am moyen pour loolu mhm. xoolal li ñuy wax en France dañuy def xaalis bu bëri ci sécurité sociale bi mais taxul que nit ñi tout le parce que ñoom seen santé dafa basé wu ci hôpital dispensaire médecin mais santé bi moom il faut ñu génn ci ci ci structure yi ñu jébbalaat ko comité bi ñu wax ak comité bi maintenant pour revenir sur personne âgée xam nga ñun suñu wax personne âgée dañ naan koo xam ni dafa am 60 ans maintenant nag souvent nit ñi dañuy def euh, amalgame en pensant que personne âgée yëpp dañu feebar. Mhm. mais personne âgée yëpp feebaruñu. mais gis nga baati wolof bi dañuy wax <laughs> mag rek. feebar <laughs> waaw <laughs> baat boobu jubul kon noonu noonu <laughs> baat boobu moom chaque fois fu ma dem euh, émission wala fu ma dem moom dama koy essayer dàq quoi parce que baat bi c'est vrai que parce que xam nga dafa am c'est-à-dire que la frontière entre vieillesse ak maladie la frontière est extrêmement frontière moom moo difficile à, à déterminer mm-hmm. mais mais mag ñëpp sinon kon kon dootuñu amati kon suñu hmm. structure yëpp suñu ko am 60 ans ñu jël yóbbu hôpital hmm. donc xam nga c'est pas possible et il faut dañu war a xam ne dafa am ñetti catégorie mag am na mag ñoo xam ni dañu am en bonne santé c'est des personnes vigoureuses et cetera donc hmm. en vraiment bonne santé kattan gi nekk fi xel mi nekk fi waaw ñooñu ñoom c'est comme man ak yow rek am na mag ñoo xam ni dañu xaw a fragile li ñuy wax ni bon dañu am yenn comme amuñu feebar yu métti sax mais yenn ñu dañu fragile pour yenn feebar ñu ngi leen di commencé dugg. Mm-hmm. mais am na troisième catégorie bi nag moom mooy la catégorie la plus exposée mooy mag ñoo xam ni dañu am li ñuy wax ni ay comorbidité ay feebar yu bëri yu nekk seen yaram dañuy nekk en perte d' autonomie. dootuñu mën a jóg mënatuñu seen bopp dara. mënatuñu seen bopp dara mm-hmm. dañuy nekk dépendance et cetera. pour vous dire que par exemple dans les pays parce que soixante quinze pour cent des décès catégorie boobu la gën a concerné. Mhm. cest ñoo xam ni vraiment mëntuñu dara. et souvent mag ñooñu aussi du ñu am benn feebar dañuy am diabète hypertension insuffisance cardiaque problème xaw rein dootuñu mën a gisati et cetera et l' Covid nag su duggee ci biir euh, personne age boobu day déstructurer déstabiliser tout le système. et ce qui nag le taux de foofu la foofu la gën a tey jarul ngeen ñuy seetaan parce que xam naa ni li ñuy wax dëgg la du dalal xel mais nag wala boog nañ seetaan parce que baax na ñu xam ko. Ah voilà oh <laughs> baax na ñu xam ko. allez-y allez-y professeur maintenant nag peut-être pour revenir euh, cas parce que xam souvent dañuy wax l'âge mais ñun dañu am plusieurs catégories d'âge mais dans le langage courant dans le langage populaire dans le langage journaliste. man su ma la waxee ñaata at nga am da ngay xool sa carte d'identité nga ne nga ne lii rek bon j'ai j'ai quarante cinq ans point mm-hmm. keneen xool carte d'identité mu ne loolu moom mooy âge chronologique mooy loo xam loolu boobu li ñëpp xam mm-hmm. mais am na beneen âge boo xam ni malheureusement dafa làqu ci biir mu lu ñuy wax l'âge physiologique l'âge physiologique mooy que sa presque sa état de santé mm-hmm. loolu tax biñ moo bi ma déggee ni am na bon yàlla na ko yàlla yërëm ko xam ne dafa am trente sept ans décédé may doon discuter sama collègue yi ma leen di c'est vrai 37 la am ci âge am mais suñu xoolee l'âge am biologique et physiologique mais mu ngi presque presque personne âgée la. Mhm. parce que dafa am diabète am hypertension am am asthme am surpoids. Mhm. donc il faut ñu man xam ñu man euh, def la différence entre ces deux âges l'âge chronologique mooy bi ñu utiliser. mais l'âge physiologique mooy l'âge sa état de santé. kii du ma lijjantil suma physiologiste bi euh, professeur Bamba Kane parce que je pense que c'est le meilleur moment pour waxtaan ak moom tuuti professeur Omar Kane. Omar Kane continue. donc donc tu vois que ce qui veut dire que. mais am na nag yeneen âge. par exemple bon mes amis sociologues ont par exemple yow mën nga am rakk boo xam ne day nekk un médiateur familial moom mooy toppatoo mhm. mhm. ah, loolu mooy seen repéru mhm. am na ñoo xam ne aussi ce qu'on appelle l'âge psychologique na ñoo xam mu nekk leen am na ñoo xam da nga naan que ñu ngi am trente ans mais daana yéeg kii mag la parce que moom xel mi et cetera ce qui veut dire que souvent on fait beaucoup amal loolu tax ñu ne euh, nañu mën a tenir en compte suñuy wax feebar ñu loolu tax ñu ñu investiguer ban moo doon lan moo doon statut de sanitaire parce que ñi ñuy wax maa ngi liir léegi même si seen bi am euh, kooku aussi yàlla na ko yàlla yërëm xarit ko àjjana mu ngi am 37 ans décédé mmh. mais bi ma liiree suuf ay insuffisance rénale chronique mmh. et cetera et yooyu nag day accélérer mmh. yooyu nag day accélérer ce processus de vieillissement même soo amee quarante ans trente euh, cinquante ans et cetera. Mhm. feebar yi nga am day accélérer le processus de vieillissement. loolu moo tax ñu ne ñun en gériatrie. Mhm. xam nga souvent man bi ma nekkee consultation daan na ma daal souvent damay gis ñaari nit ñu ñëw di ma ñaari personnes âgées ñëw di ma seet en consultation ñu ne mais docteur man sama man sama xarit Ngom ñoo ñoo ñoo dalan ñoo dalandoo école ñoo bokkandoo université. mais moom mën na doog fii ba caajaay mais mënuma mënuma dem fii sax su ma demee doxee tuuti damay appaat mais c' est que on n'a pas les mêmes parcours mm-hmm. on n'a pas les mêmes modes de vie mm-hmm. ce qui veut dire que mën nañuy bekk même age mm-hmm. mais ñu ñu suñu âge de santé wala âge physiologique fekk mu wuute mais professeur il n'en demeure pas moins que feebar bi defe naa na wax nga ko ci sa kàddu ñi mu gën a yàpp mooy mag ñi ci âge physiologique boobu ci ñi nga xamante ni nii seeni seeni organe xëy na wàññeeku na d'ailleurs on vient d'enregistrer un seizième décès euh, d'un homme âgé de soixante-neuf ans bu dëkk Dakar mu ngi décédé ci centre de santé Nabil Choucair voilà euh, alors test yi nga xam ne nag dañu ko def après décès c'est important, c'est très utile ñoo ñëw positif voilà du ko xam ne ni dañ ko diagnostiqué woon wala dañ ko doon topp pour feebar bi waaye bi mu génnee àddina test yi ñu def moo positif loolu ci suñu benn thème la ci li nga xam ne ni moom lañ bëgg a waxtaanee dafa tombe mais ça nous permet dinañ ko waxtaanee parce que dafa mel ni euh, ni ñu ko defee ci titre bi tous Covid plus on ne meur plus que de Covid 19 parce que ñii génn àddina sax bu ñu leen testé mu ñëw positif dinañ ci ñëw léegi ak age mhm. bi nga xam ne nii am nañu ko 69 ans professeur Ousseynou Ka junj nga sànq euh, sociologie wu mag ñi ci réew tugal yi nga xam ne wax nga ni soixante quinze pour cent décès yi ci mag ñi la dafa am nag loo xam ne ñoom moom la ñu am seen mag yi dañ leen di ber ci ay maison de retraite ah li ñuy wax ay EHPAD ak yooyu alors avantage la wala du avantage ci bu ñu xamee ni fii mag ñi ñu ngi ci biir kër yi naam de tout le temps dañ leen di toppatoo waaye nee nañu feebar bi plus ñu gën a nekkante ci suñu biir risque de transmission bi di gën di bari. donc beroon mag ñi waxuma ñu ber leen nag. <laughs> beroon système ber mag ñi avantage la am déet. par rapport ak ñun ni ñuy dundee. professeur Ousseynou Ka après Ibrahima Ngom <laughs> professeur. oui oui non que cette question boo xam ne moom vraiment c'est xam nga Covid bi daf ñu daf mel ni daf ñu bett te ñun aussi il faut que ñu gaawantu mën wut ay stratégie pour que man ka man ko arrêter xam nga li nga wax léegi c'est très important. c'est-à-dire que dañu ne mesure de barrières yi il faut le confinement et la distanciation sociale mm-hmm. man en fait def naa fi plusieurs fois ay émissions yi suñu may affaire mag dem naa leen mag ni nañ leen nañ nañ leen bàyyi nañ leen nañ nañu nekk dans la vie familiale nañu nekk ci communauté bi suñu waree dem marché nañ leen bàyyi ñu dem marché suñu waree jaayi marché nañ leen bàyyi ñu jaayi marché suñu waree nekk ak seen sëti et plus souvent que doom wala sëti ñëw di leen entouré. Mhm. parce que loolu dafa nekk dafa am un effet très bénéfique pour la santé de la personne age vraiment loolu mais malheureusement nag avec feebar bi dañu ne nañu def distanciation sociale nañu def confinement ma ne c'est très difficile li ma ci xalaat daal mooy que il faut des mesures barrières mais il faut que ñu mën a humaniser ces mesures barrières xam nga mënoo am benn mag boo xam ni dafa nekkoon ci kër yi sët yi di seet nit ñi nekk ci biir kër yi subitement rek nga ne léegi sët bu leen dugg duggati foofu. Mhm. parce que suñu deful ndànk aussi li ñuy rechercher dañuy am effet beneen effet négatif. parce que la personne peut se mën na am ay dépression man na am insomnie lu tax ñii duñ ma seetati lu tax du ma wax ak ñeneen et te loolu comme ni ko waxee léegi dafa nekk un effet bénéfique pour la santé de la personne man nag pour euh, joxe euh, quelques recommandations. Mhm. je pense que mën nañu mën nañu humaniser les barrières auprès pour les personnes âgées mën nañu humaniser. c'est-à-dire. c'est-à-dire que il faut premièrement il faut ñu expliquer personne age bi la mooy maladie bi. xam nga ñi ci kër yi déglu leen bu baax parce que ci lii la ñu jëm ci fan yii. Mhm. parce que bu ñu nekkee ci perspective ubbi école yi ça veut dire que nit ñi dinañu génn dem bi dina tàmbaliwaat. donc déglu leen pour ak mag ñi ci kër yi comme ñoom ñoo gën a fragile gën a exposé professeur Ousseynou Ka merci donc premièrement li ma doon wax léegi euh, il faut ay barrières parce que dañu war a protéger mag bi pour mu bañ am feebaru Covid bi mais aussi que mesure barrière yooyu warul indi ay effets négatif ci personne âgée bi donc loolu moom vraiment dafa am solo peut-être que li ñu mën def nii mooy que euh, vraiment soo nekkee euh, mag pour les mesures barrières il faut que ñu humaniser nan lay kii humaniser mooy que il faut premièrement ñu expliquer personne âgée bi parce que il faut que moom mu sentir que dafa bokk ci processus bi il faut ñu nekk wéy suñu toog moom ñu expliquer ko bu baax a baax lan mooy feebar Covid ñu expliquer ko mesures yu et yu yu ñuy utiliser pour que ñu mën ko protéger pour que moom mu xam ni. li ñuy def yëpp c'est pour c'est pour son bien-être maintenant pour deuxième acte bi mooy que il faut aussi pour la distance sociale il faut que ñu mën a respecter par exemple personne âgée bi ak sëtami wala doomam ñu mën respecter les les les un mètre euh, yu yu yu autorité bi wax un mètre c'est-à-dire que dañuy éviter maintenant que nga dem rek ah, nekk ci mag bi c'est bu lamb nga koy. Euh, euh, di tëb ci kawam di tëb ci kawam comme xale yi ni ñuy nekk ak seen maam mais mais professeur loolu gisoo ni feebar bi dafa attaqué ñun li ñu doon. ndax kër yi. maam yeeg sët yi moom. jaxasoo boobu dafa mel ni loolu sax moo neex maam yi. parce que mm-hmm. maam bu amatul sëtam bu ñëw tëb ci kaw mu jox ko dërëm walla fistine. Mm-hmm. amul lu ko neex. nga ne ko léegi xale yi mën ngay mën nañu nekk waaye buñ la jege nañu. sori un mètre. loolu defe na est-ce que ñoom sax dina neex a dugg ci seen parce que defe naa ñoom ñoo njëkk a réfractaire ci xeetu consigne boobu. ah loolu tax ma ne au tout début. il faut que personne age âgée nekk au cœur et au <laughs> centre du dispositif il faut mu ko accepter c'est que su ko accepté wul man na am insomnie dépression su amoon tension tension bi yéeg mu commencé xalaat lu tax ñu may def nii man la laa lu tax lu tax exactement. mais xam nga état d'esprit mag dañuy wax sax mag buur la. waaw c'est-à-dire pour dugal ko ci boppam sax. mais mais loolu tax mu tax loolu tax affaire bi mu jafe mais aussi que waruñu baisser les bras. rek mhm. une personne âgée comme euh, moo aussi il faut ñu expliquer bu baax lan mooy feebar bi ak les mesures barrières. les enfants aussi il faut ñu mën leen expliquer parce que enfant aussi que su nekkee ba kuy jàngi école suñ ko expliquer que léegi lii war a toog ko def parce que comme ñun ñëpp dañu bëgg suñu papa yi ak suñu maam yi mais il faut mesure yooyu suñ ko intégrer dina man dina fex ba ba protéger leen aussi que suñuy añ parce que bu yàgg dama doon wax bu yàgg li ma doon wax aussi dama naan loon su ngeen di añ woo leen seen pap ak seen maam ngeen bokk benn bool toog di mhm. waxtaan. Mhm. mais loolu aussi ça va poser des problèmes. ah <laughs> añu añu tiim bool bi dégg <laughs> na. loolu moo tax loolu moo <laughs> ok dinañ ñëwaat añu tiim bool dafa war a xewi kon. non <laughs> xanaa balaa balaa socio anthropologue di di di génn di attaqué. donc bon <laughs> professeur Cheikh Ibra Niang xam naa ni dina fi dellu si <laughs> alors je donne quand euh, cinq membres du personnel du service d'accueil des urgences bu hôpital Fann testé positif au Covid 19 juróomi nit yuy liggéey ci service d'urgence bu hôpital Fann ñoom it jàpp nañu doomu jàngoro bi euh, communiqué directeur hôpital bi la wax na ni jël nañ leen en charge. jël en charge aussi ñi nga xam ne ñooy seen i contact professeur Pape Ibrahima Ngom jàlluma ci beneen thème parce que gis naa ne bii Ousseynou ko doon am na loo ci bëggoon am am na yoo ci bëggoon a sànni non euh, question bi nga posé au début rek ci laa bëgg a répondre mhm. suñu système social nga xam ne dañuy dund ak euh, suñu papa yi ak suñu yaay yi ci suñu biir kër yore leen mhm. ak suñu maam yi ba yàlla mhm. moom leen c'est le meilleur système au monde. ñëpp ñu ko ñee. tubaab yi ngay gis nii dañ ci ñee man dama dëkk France lu yàgg bu ma leen expliquer nu ñuy dundee ñoom dañu defe ne damay lépp damay wax lu kiiwul may leen man sama yaay dama dama ko yore. Mhm. sama maam dañ koy seeti nekkul ci maison de mais loolu c'est extraordinaire loolu mooy suuxat xolu mag ñi. Mhm. moo leen di tax a euh, dund xam nga dund. du dund gu gudd rek euh, tubaab yi ñoom dund gi dañ ko taw yi bu baax a baax a baax mu mun a gudd bu lu yàgg mais dund boobu qualité bi moo ëpp importance te qualité de vie boobu pour mag ñi am ko il faut ñu nekk ak seen euh, seen doom yeeg seen sët yi c'est très important entourage bi mm-hmm. c'est particulièrement important maintenant euh, ci situation bi ñu nekk nii situation bi mooy woolu bees xam nga bu ma gisee ci réseau sociaux yi mm-hmm. nit ñi di Euh, foyee euh, affaire bi ay jeunes ñoom ay vingt ans trent ans damay gis ay message WhatsApp ay kii ñuy wax ñoo xam ne dañ naan gëmuñu affaire bi. Mhm. ñoom affaire bi xëy na ay xale lañu ay ndaw lañu amuñu benn comorbidité mais ñi ngi bàyyi seen yaay foofu wala ñi ngi fa bàyyi seen maam. Mhm. bu ñu bu ñu jëlee doomu jàngaro bi nga xam ne ñoom il sont asymptomatiques dara du euh, feebar bi du feeñ ci ñoom. Mhm. ñu yóbbu ko seen kër dañuy rey seen yaay wala seen maam. loolu foofu la ñu war a wax entourage wu nit ñooñu. moo tax dañu war a ñaaxaat nit ñi rek ñu comprendre que suñu structure sociale nu mu mel nii baax na mais il faut que nit ñi def ci seen xel que loolu ci fonctionnement wu feebar bi la feebar bi mun na dal xale mun xale mun na yor doomu jàngoro ji du ko daaneel du ko daaneel feebar wante bu àggee ci mag da koy daaneel feebar te mun na ko yóbbu moo tax nit il faut ñu jëlaat conscience ci mesure barrière li ñu di wax précaution yi ñeen leen di wax port de masque bi leen di wax Euh, éviter rassemblement yi ñu leen di wax yëpp ñu éviter ko c'est particulièrement important donc man loolu rek laa bëggoon wax euh, sinon professeur Ousseynou Ka wax na lépp maintenant euh, que du ñu soxla ñuy changer structure suñu famille ñi doon lekk ensemble di lekk ensemble mais il faut que mesure barrière yi rek ni nga mën a def ba yow mi fi mu nekk nii di jël mesure pour que sa kër doo ko fa yóbbu man moom moom moom moom laay jël moom la keneen di jël personnel soignant yi ñooñu wax noonu mm-hmm. seen kër yi mais am na lu ñuy def pour du ñu yóbbaale jàngoro ji ñi nga xam ne du ñu faj nag te nekk ci dëkk bi di liggéey yeneen liggéey ñu di leen te amul benn bés bu ñu leen dul wax dëkk bi def nañu. Mm. vraiment communication bu mat mat taf nañ fu nekk ne nit ñi mm. euh, Covid nii lañ koy éviter bu ñu defee loolu. euh, il y aura pas de problème dans les bu ñu respecter mesures barrières yooyu il faut ñu nit ñi respecter ko il faut ñu xam loolu. nan laa ko euh, man nan laa ko présenté chirurgien parce que mënoon naa ko présenté socio anthropologue wala spécialiste communication. <laughs> parce que dafa réorienté euh, c'est vrai que communication war na glisser. ci foofu pour wax nit ñi ne. même boo wóoloo sa bopp. Mm-hmm. xëy na am na koo ko mën a wàllu koo xam ne ku sori ci sa xol la. te mun nga koo lor. tout à defe naa loolu aussi bu ko nit ñi déggee. boo dee ndaw nga yaakaar ni feebar bi mënul ci yow dara parce que gis nañ ni bon du lottal ndaw boo xam ne mu ngi ci kattanam uh-huh. mais xëy na am na sa maam sa yaay sa papa wala sax sa doom boo xam ne nii peut-être am na asthme wala moom amul kattan bi nga am yow uh-huh. mun nga ko lor te xëy na lor boobu sax moo gën a diis ci xel uh-huh. que nga lor sa bopp baal ma pour me reprendre loolu rek te mm-hmm. noonu lay demee sax mag ñi fi jóge ñëpp mm-hmm. seen ñu leen seeti ñu ay ñu leen ñu leen jege ñu respecté wul affaire yi ñoo leen ñoo leen koy jox ni muy demee mooy que ñoo ñu mag ñi souvent du ñu bouger fi ñuy nekk du ñu bouger lu bari nit ku am quatre-vingt-dix ans quatre-vingt-cinq ans day yore xelam yëpp fii Sénégal euh, lu ci ëpp souvent. Mm-hmm. parce que ay jullit yu baax lañu dañuy nekk di mën a communiquer bu baax ak nit ñi du ñu dem fenn ñun ñuy dem ak dellu si ñoo leen mën a jëlee affaire bi andi ko mais ñun ñooñu ñun ñoo war a jël suñuy matuwaay pour bañ a andi affaire bi loolu il faut que ñu di ko insister di ko wax nit ñi. surtout fi affaire bi toll nii nga xam ne dafa bari am ay cas communautaire affaire yu yëpp képp kuy génn rek na nga def ci sa xel ne dama war a def lu ma mun def pour bañ a delloo si affaire bi ci kër gi. waaw li may yokk rek c'est vrai que euh, jeune su ko amee c'est du sentir dara loolu moo tax ngay gis si réseaux sociaux yi les gens disent que way way ah man de ñu ngi ma confiné fii te man dara jotuma et cetera mm-hmm. c'est que xamuñu dans notre culture africaine ak sénégalaise feebar mooy que il faut dara jot la mais malheureusement feebar bi su duggee sa biir yaram doo sentir dara et d'ailleurs même euh, avec le changement euh, sanitaire feebar yi di ñuy aussi c'est la même chose diabète ak asthme mm-hmm. léegi nag su fekkee danga dem ba wàll mag yi mm-hmm. mag yi la personne âgée mën na dem hopital non pas dafa am infection mm-hmm. mais parce que euh, kii bi Covid bi moo déséquilibré diabète bi léegi nag diabète bi day nekk au premier plan nga dem hopital nga ne waawaa da ngay seet sama diabète bi dafa déséquilibré wala sama tension et cetera fekk li ko indi mooy infection yi moom moo ko infection covid bi moom moo ko indi leen suñu la diagnostiqué peut-être euh, euh, suñu su ko su infirmier xamee da nga amul yenn si yi mhm. mu defal la test mu xam yow da nga am covid mais souvent loolu du nekk au premier plan mhm. parce que déséquilibre bi muy indi moom mooy nekk moom mooy nekk au mhm. premier plan et pour revenir aussi toujours ci confinement bi il faut aussi que xam confinement aussi ne veut pas dire que vraiment ñu couper les liens familiaux ak sociaux mhm. il faut que la personne âgée bi nekk bi bu nekk ci kër yi il faut que muy lekk normalement et puis il faut muy lekk entre quatre cinq ba six fois dans la journée parce que dañu ne nouriture day yokk système immunitaire day tax personne âgée bi gën a dëgër mhm. mais personne age boo xam ne dafa xiif l'infection dafay day wàññi kattanam dafay dafay wàññi mhm. kattanam. Mhm. et aussi que ñuy recommander aussi personnes âgées ñuy naan ndox aussi dafay am benn effet ci limité ngay naan ngay naan au minimum un à un virgule cinq litres d'eau par jour. Mhm. parce que soo amee tuuti ndox bu manque sa yaram tuuti rek day wàññi encore sa immunité. il faut aussi que xam nga ci biir kër yi aussi dañ leen mën nañu wax ne bu leen génn. mais obligatoirement il faut que ñu nekk di doxam. doxantu dox moom c' est c' est une c' est lu baax la sax am déet lu baax la sax c' est ça lu baax la. nag peut-être que ñoo xam ne dañu am ay euh, mënuñu ñëw ci kër yi mais ñuy woote très souvent. Mm. la personne age mu xam ni que vraiment circonstance bii rekk tax mais kii Moussa wootee na Fatou woote na régulièrement ñuy woote pour que mu nekk en contact avec avec les membres de sa famille. avec la famille élargie loolu aussi vraiment am na solo parce que. et puis aussi que surtout nag su amee feebar ñu mën a surveiller la maladie pour que su amee diabète ñu koy surveiller bu baax su amee tension ñu koy surveiller bu baax su amee lenn lu mu yëg ci yaram ñu mën ko yóbbu ñu mën ko yóbbu au dispensaire wala wala à l'hôpital à tous les deux gis ngeen ni quand même euh, feebar bi ñi muy lor def naa loolu léegi leer na ci àdduna bi euh, c'est rare mu lor koo xam ne nii tu bien portant am sa kàttan donte am na ci ñoo xam ne dee nañu xëy na gëstuñu bu baax pour xam nu mu def ba lor leen mais très souvent ñi muy lor ñi muy lottal mooy ñi nga xam ne am nañu yeneen am nañu yeneen yoo xam ne comme feebar yi ñu fi tudd yëpp stratégie nationale bi quand parce que loolu spécifi spécifié wu ñu ko woon si dañu doon boole ñëpp rek soññ bi ci ci ñëpp mais léegi bu ñu demee ba xam ni cible bi ñii la dëggantaan te alakuli xaal nag foog activités yi reprendre parce que daf mel ni ci loolu nañu jëm ndax àdduna bi ñëpp jàpp nañ ni àdduna bi mënul continuer tënku nan la ñuy def pour réorienter waat yëf yi ci wàll boobu wala dañuy des rek ci soññ bi globalement ci ñëpp professeur Pape Ibrahima Ngom comme yaa fi yaa fi socio anthropologue <laughs> eh, non man man man dama yaakaar ne li ñu war a def hmm. wax dëgg yàlla ci côté boobu ci communication ci information def nañ ko man sooy daw nii dakaar rek da ngay gis panneau publicitaire yi. Mhm. amatul benn publicité Covid lépp Covid la. Mhm. ñu ngi wax télé bi seen télévision ak yeneen. Mhm. télévision am nañ benn encart toujours pour ñaax nit ñi. donc pour man problème bi du foofu quoi. confiné wu ñu fii Sénégal. mun nañu wax semi confinement la ñu def. Mhm. parce que couvre-feu moo am. ak ñu mhm. wax ni ñuy. Euh, am mesure yu jël oto yi wàññi leen lii wàññi leen yi tey mhm. oto yi ñu wàññi ko léegi tëj na yenn marché yi ainsi de suite. donc pour man def nañ li ñu war def. ak teel may nit ñi ñuy wàcc. c'est que li peut-être xaw ma nu ñu ko man def commu ñiy def communication war nañ ko xam nu ñu mën a def pour ñi nga xam ne te bari nañu quand seen xel. gëmaguñu affaire bi li ñuy wax déni ci ci tubaab gëmaguñu ne feebar bi am na te feebar bi day rey te feebar bi ñi mu gën a yàpp mooy ñu gën a seen âge jom kanam. te ñun mhm. ñooñu la ñu gën a fonk nag wax dëgg yàlla parce que bari la wuñ ko. tubaab yi loolu population 20 pour cent la ñuy représenté mhm. les 65 ans et les 60 ans et plus 65 plus ou plus ñun ay 5 pour cent la ñu il faut que nit ñi comprendre loolu. loolu mhm. xaw ma nag ni ñu koy defee ci communication pour mu dugg ci bopp nit ñi que euh, bu ñu deful ndànk. continuer di def fi. Euh, fexe ba ñu am kersa voilà foog ñu am kersa yi fi maté yi may gis naa ko waxee noonu nga jégal ma. Mhm. yi may gis quelque fois muy am nii te parce que moo ñuy écœuré ñun moo ñuy metti mhm. yaa ngi dégg da ngay bëgg a jooy sax boo gisee yenn wax ak yenn jëfan jëf yi ñu dundul feebar bi ñu dundul feebar mhm. te ñooñu xëy na du leen feebar bi du leen mës a duñ ko mës a yëg sax mais mun nañ ko dem jox ko mag mun nañ koy wàlle di ko tasaare te fii mag ñi ñenn mag ñi sax du ñu dem du ñu nekk ci kër yi mais dañuy dem di jaay dañuy dem di liggéey dañuy am mm-hmm. yeneen activité ñooñu yëpp mën nañ leen ko jox il faut que man je pense communication bi def nañ ko xëy na euh, dafa peut être fu ñu war a dolli cible bi daal xëy na moom la ñu kii man j'ai vraiment l'impression que la communication xaw ma nag ñi nga xam ne dañu inconscient ci affaire ba léegi am déni maladie bi xaw ma nu ñu leen di atteindre professeur Pape euh, Ousmane euh, Ousseynou Ka ci mag ñi nga xam ne am nañu kàttan di ñëw di visite euh, lan moo ëpp fii Sénégal mag yi ñëw visite wala yi ngeen di visiter ji à domicile parce que aussi kattan gi bu demee ba benn moment xëy na docteurs yi ñooy déplacé wu di leen seeti. c'est ça am na am na c'est vrai euh, am na mag ñu bari ñoo xam ne dañuy ñëw si structure sanitaire mais toujours il faut avoir à l'esprit la grande majorité des personnes âgées. Mhm. c'est des personnes ay ñoo xam ne dara ñuy toppatoo mhm. seen activité mhm. yu mel noonu quoi. tout à donc suñuy su. comme ni nga ko doon waxee rek mag ak feebar vraiment wuute na quoi. bokkul oui bokkul. am na l' autre euh, beneen catégorie mooy ñoo xam dañuy ñëw dans nos structures sanitaires mooy ñoo xam ne dañuy contrôler seen diabète seen tension et mais beneen boo xam ne bu ñu wax ni catégorie boo xam ne c' est invisible. moom mooy ñi nekk ci biir kër yi. ñoom dañu am la grande dépendance. dañ leen di mm-hmm. yëkkati mm-hmm. dañ leen di tëral des fois dañ leen di saxal ñu génn ñoo xam ñu génn et ñooñ nag ñoo gën a vulnérable encore. donc suñuy suñuy suñuy classé risque de vulnérabilité yi mhm. da ngay commencé si ñooñu mhm. après ñi am feebaru ay maladie euh, chronique yi mhm. diabète hypertension après nga yëg ñoo xam ni euh, vraiment dañuy jogging dañuy def seen activité ma loolu waa quoi maintenant nag peut-être que euh, pour ñëw ci lii sama xarit bi wax sur le déni mais en fait loolu mooy rôle observatoire observatoire parce que am nañu ay socio anthropo comme ni nga wax ñoom Sylvain ñoom mhm. euh, euh, Cheikh Ibrahima mhm. dañu euh, waaw dañu war a comme dañu war a toog réfléchir ay projet de dem xool ñii di def pour pourtant pour xam nga ni du toog ba si yàgg rek mu ne dama lii moom amul mhm. peut-être moom am na fu mu ko fu mu ko fu mu ko teg mooy souvent soo nekkee enseignement supérieur doo condamné ñooñu da nga naa leen peut-être il faut ma après xool lu tax ñu ñu ñu ñu comporté woon noonu. après ma xool ban alternative lay lay def pour que ñu mën a duggaat ci biir groupe bi. mais sinon soo leen soo fermé porte nga ni ñoo nii dañu kii mais ñooñu nag ñoom ñooy ñoo lay gën a di poser ji ay problèmes. mais docteur professeur on a tout essayé. relais yi bàjjenu gox yi ñoom ñëw nañ fii bàkku nee nañu xajuñu woon ci ci cas communautaire yi une semaine waaye semaine bi jeex na ba léegi elles n'ont pas réglé le problème mhm. les bàjjenu gox ma leen koy fàttali ils avaient pris le défi que daan les cas communautaires c'est encore fait euh, essayé on a tout essayé li nga xam ne nii am nañu ko ci suñu sooklu société yëpp mhm. pour mën a intervenir def naa def nañu ko fi mu toll nii mais am na ñoo xam ne fexe ba feebar bi dugg ci seen bopp pour ñu dund ko lu <laughs> leen jafale mais defe naa ni aaju na ci li nga xamante ni nii moom lañu teel a xam ni feebar bi mën na leen bañ a sonal ñoom. ba xëy na tiitatuñu seen fit rëccatul. pour ñu dund ko mais nag ñu xam ni mën nañoo lor seen i mbokk. Mm-hmm. maam bi ñu bàyyi ci kër gi bu ñu ko naree lor. Mm-hmm. musiba la mm-hmm. daf ñuy dugal ci suñu point bu mujj ndax waxtu waa ngi dem mu ngi xuus. li nga xam ne nii dab nañu sax ci biir émission bi. Mamadou Oumy Kane la aussi. professeur Bamba Kane maa lay nuyu. Mamadou Oumy Kane. est-ce que Bamba mu ngi may dégg Bamba kan est-ce que yaa ngi may dégg bon euh, la régie va s'occuper de ça euh, professeur Ousseynou Ka euh, li ma buggoon a wax est-ce que Bamba mu ngi ñuy dégg Bamba bon ah, on va laisser on va laisser la la régie s'en occuper après ñu ñëwaat euh, professeur Ousseynou Ka li ñu doon wax mooy gis nga li ñu dab ci biir émission bi cas bi nga xam ne nii testé nañu ko mu positif ci cas boo xam ne nii nit ku génn àddina la defe naa am nañu fi ñett wala ñeenti cas yoo xam ne ba commencé na indi werante commencé na indi werante rawatina ci kaawu tuubaa bi nga xamante ne nii ay mbokkam nee nañu mais ñun suñu nit kii xam ne yàllaa ko fi bàyyi woon waaye nag yàgg naa tëdd ci leneen ak leneen ak leneen tester nit ñu dee génn àddina pour tester leen pour xam budul lañu ko xamee woon autopsie pour xam ndax nit daf ko empoisonné wala daf ko rey ak loolu est-ce que stratégie nationale bi tey war nañoo yegg ci tester nit ñi faatoo ci kër yi wala boog sax tollu diggante ci mujjanteel ñu yóbbu hôpital nga génnee fa àddina xëy ne mun nañu comprendre mais tester nit ñi faatu ci kër yi solo bi lan la. <laughs> waaw merci ci question bi. je pense ci yow laa njëkk ñëw parce que presque ay personnes âgées lañ donc ma njëkk ci yow. mais c'est amoon à mon avis xam nga actuellement ñu ngi def les statistiques vraiment de de de de de du du Covid en matière de xam nga tous les matins da gis ñu ne woy woy am na ñaata noonu encore ñaata kaa la ñu am et mais loolu c'est très important. Mm-hmm. maintenant aussi que ñi décédé il faut ñu defal leen ay investigation pour xam réellement lan la ñuy décédé su fekkee ci Covid bi la mais dañuy xam ne au Sénégal. Covid bi ñaata nit la la la génn seen àdduna ci ab ab ci ci Covid bi. Mhm. et day permettre aussi ñu mën a re vraiment euh, recontextualiser premier suñu communication xoolaat stratégie yi ñu war a def par exemple ñi décédé à domicile mais xam nga normalement décès à domicile c'est vrai que peut-être am nañu peut-être amoon nañu ay symptômes lu tax yóbbu ñu woon euh, ci ci dans nos structures sanitaires. mais souvent li ñuy constaté nag chez les age âgées c' est Covid bi du nekk au devant de la scène. c' est que mm-hmm. nga am jabet mën nga am tension léeg-léeg nit ñi topp ci jabet ak ci tension bi fekk Covid bi moom moo déséquilibré affaire yi. Mm-hmm. et sur le plan national parce que loolu moom àddina bi yëpp a soxla même mooñ même àddina bi yëpp dañuy chaque année dañ ñaan ah ñaata palu ñaata la rey. Mm-hmm. tuberculose ñaata la rey. ski et su ñu demee par exemple su suñu amee ay ressources suñu xamee ne lii c'est une maladie ex danger extrêmement mais il faut que ñu def ay programme ay stratégie waxuma et puis mais ñu man ko ñu man ñu mën ko ñu mën ko euh, euh, prévoir loolu mooy loolu mooy vraiment euh, intérêt diagnostic post mortem et ça moom vraiment que c'est c'est c'est parce que ça permet vraiment de de de d'avoir de très bonnes statistiques. mais, mais professeur scientifique bi léegi laay interroger jëm nga ma ko jox sociologiquement mais scientifique bi le médecin. waaw eh, vraiment ah, au-delà de statistiques yi chiffres yi te gis nga statistiques yi. soo xoolee bu baax si crise bi état yëpp yi fi tenir statistique dañu ko jéem a dissimuler. Mhm. c'est-à-dire bu ñu wàññiwul yokkuñu. Mhm. amul benn état boo xam ne nii. jàpp ñu ko en flagrant délit ci jéem a wàññi ay chiffres. Mhm. def naa Chine ci njëkk Angleterre a ngi ne ba leen coow li toppee la ñu jékki-jékki wane ni voilà boole wuñ ci woon personne âgée yi mhm. finalement mu explosé donc c'est ça la tendance mhm. wàññi mais scientifiquement dama bëgg interroger yéen ñaar scientifiquement c'est-à-dire quel est quel peut être nit ki dee à domicile ñu testé ko pour xool ndax positif naam déet ak werante bi muy indi nii yëpp man pour man euh, c'est utile au moins euh, scientifiquement. ci ñetti ñetti euh, point de vue ci ñetti point d'abord parce que kooku nga xam ne dafa gaañu këram njabootam yaakaar ne du Covid 19 moom moo ko rey mais kooku dafa am ay cas contact. dafa am ay nit ñu koy seet si dafa am nit ñu doon jëflanteel bon bon ñu xam ne au moins lii la amoon baax na pour suivre cas contact yooyu. parce que suñ ko deful ñooñu du ñu xam ne looloo ko rey dañuy di dem di dox seen soxla après dañ leen di considérer après comme ay cas communautaire parce que du ñu xam fan lañ ko jëlee fekk na ci kooku la ko jëlee en réalité loolu benn la loolu xam nga am na importance ñaareel bi il faut que nit ñi xam ne que Sénégal nekkul benn réew ci benn îlot moom boppam noonu euh, à tout point de vue euh, dafa am ay maladies à déclaration obligatoire loo mm-hmm. xam ne tey mm-hmm. Sénégal su fi feebar amee état sénégalais dafa am obligation waxe ko Chine loolu moo tax Covid bi feeñ loolu la leen lañ leen di reproché dañ ko yéex a wax tout ça parce que feebar bu ñu war a yëgle la. Mhm. mais Covid bi ci la bokk kooku gaañu pour loolu Sénégal dafa am obligation wax kii lii moom moo ko rey. Mhm. mënuñu ko. alors Covid feeñ ci nit. ci ne amoon na doomu jàngoro ji. est que parce que si ay scientifique ngeen. xam ngeen ni euh, budul autopsie. Mhm. vraiment pour ñu xam dëggantaan lan moo faat nit ki. Mhm. est-ce que parce que doomu jàngoro baa ci moom. alors que amoon na ko comorbidité bu bari leneen ak leneen ak leneen la nga woon ci moom. Mhm. mën nañu koo jiiñ Covid. li ngay wax fi mu nekk nii mooy discriminer ndax ci euh, feebar yi. kooku am gis li muy indi yëpp. ndax loolu ndax euh, kii moo ko andi. lenn de am na. Euh, Covid moom bu ñëwee feebar bu nekkoon parce que feebar yooyu yëpp li ñuy wax physiopathologie lay tax mu jóge ci nekk. nekk feebar Covid foofu lay jaar aggravé ko. c'est donc y de fort chance mu nekk Covid. parce que Covid day ñëw fekk sa jabet mu aggravé sa jabet mu fekk nga am ay maladies cardiovasculaires parce que détails yooyu ñun duñ ci dugg duñ ci dugg ci émission bi nii mais euh, Covid bi day andi ay euh, embolie Mhm. ci ci ci ci ci ci vaisseau yi mhm. yaa ngi dégg foofu lay jaare andi ay problème c'est important il faut nit ñi comprendre que loolu probablement Covid lay doon et puis je pense que c'est pas très important di jéem a discriminer ndax Covid la walla déet la ñu xam ne ko kooku daal loolu jotoon na ko des na beneen euh, affaire aussi lu muy wax ci statistiques yi nii mais garab bu nekk euh, feebar bu nekk dañ ci war a jëlee jàngat war ci war ci jàngee dara apprendre ñu ci jógee ñu ne ah lii xamee nañ ci lii il faut ñu xam ñaata mag la yóbbu ñaata ndaw la yóbbu ci yan condition la yóbbu lan lañ amoon du ñu ngi toog nii di wax tey ne ñu am ay comorbidité lay yóbbu nu ñu ko xamee mais ay publication ci recherche lañ ko xamee bu ñu ko muuree bañ ko xam du ñu am information boobu Sénégal information Côte d'Ivoire la ñuy xëy di jëli wala yu Mali pour pour di ci sukkandiku c'est je pense que aussi comme li nga wax léegi rek c'est très moom laa doon wax diagnostic post-mortem moom vraiment c'est important parce que en fait on est dans une maladie infectieuse mhm. et dans une pandémie mhm. ça addina bi yëpp euh, la la la la jàpp ni mhm. c'est que très important que ñu mën xam et surtout comme tu dis c'est les cas contacts c'est-à-dire que ne faut pas aussi que ñuy ñuy def le déni de la maladie chez les personnes âgées parce que ñooñu ñu nekk ak personne âgée bi nekk ak ñoom pendant ay peut benn jour ñaari jour ñetti jour ainsi de suite ñooñu aussi c'est des vecteurs de transmission uh-huh. par exemple kooku mën na am koo xam ni am na am na maamam mais man moom mën na nekk asymptomatique mu dem seeti euh, kooku après mu dem dem feneen c'est pourquoi on est en de li ñuy wax dañuy traquer maladie bi quoi dañ koy topp et puis il y médico-légales il faut pas ñu fàtte ko raison médico-légales yi mooy ku gaañoo hôpital amul problème constat dañ ko def mais ku gaañoo ci kër. il faut ñu gëstu xam lu ko rey. Baye Ibrahima Baye Ibrahima yow tamit yaa ma gën a xam ni loolu nag loolu doxul ci loolu mu ngi dox ci réew mi. mais mi ngi dox ci réew mi mi ngi dox ci bu baax a baax a baax. loolu loolu loolu loolu. dëgg la bu gaañoo ci kër. il faut ñu nit ñi dañu war a. loolu mooy principe bi loolu mooy principe bi. loolu mooy principe bi. Mhm. mais loolu ñu ngi koy loolu wuñ ko sëñ bi. je ne sais pas mais pour man war dañ ko war a appliquer pour des raisons médico-légales war nañu. nga xam nga on rentre dans un boo xam ne nii. waa sax ça ne plus. parce que xoolal par exemple. xam fii ci émission bi ñu tàmbalee jox nañ fi exemple ñu amee feebar bi. Mhm. test yi. Mhm. démb am na salarié. benn chaîne de magasin boo xam ne nii am na ko ci siège ba ba ñu ne tëj nañ siège ba identifié nañ mhm. tey ñu ngi nii jot communiqué BNDE parce que un salarié du siège am na ko ainsi de suite ce que tous les jours mën nañu def <laughs> la liste mhm. de telle entreprise am na ko tëj nañu mhm. finalement loolu lu muy euh, mu ngi mel ni rek décompte yi décompte yi dans tous les pays premier cas deuxième cas troisième cas mais à un moment on ne compte plus donc lii aussi ci ñu jëme est-ce que am na mucc am na njeexital alors euh, professeur bambakan Kane j'espère que yaa ngi ñuy dégg. bon man dégg gu ma la ah. xam naa ni dégg nga ma ba yaa ngi tontu je te vois mais euh, man dégguma la est-ce que la régie peut s'occuper du retour son sur le plateau euh, bon j'espère que professeur yaa may dégg bambakan euh, allo Abdoulaye. waaw maa ngi lay dégg waaw je pense que alors on va le retour un yokk ko tuuti rek du côté de la régie alors maa ngi fi ak sa ñaari collègues universitaires comme waa enseignement supérieur ngeen <laughs> professeur Ousseynou Ka gériatre ak professeur Pape Ibrahima Ngom Ibrahima Ngom chirurgien dentiste université Cheikh Anta faculté de médecine yéen ñëpp. Euh, sànq professeur Ousseynou Ka daf doon wax dafa nekkoon ci domaine boo xam ne dama bëggoon <laughs> dellusiwaat ci ak yow parce que sa domaine la dafa doon tudd dafa doon dissocier ñaari âge yi âge chronologique ak âge physiologique âge chronologique mu ne mooy li nekk suñu carte d'identité rek hmm. ñu ne ñaata at nga am nga ne quarante cinq ans mais âge physiologique bi mu ne jotewul dara ak loolu parce que léeg nit ñu xool ko peut-être ay organes yi nekk ci biir bi. yu nekk ci moom. Hmm. peut-être organe yi ku am 70 ans la fekk 40 ans la am. nga gis ko am 70 ans organes ya baax baax boo xam ne presque âge 40 ans la am loo ñuy loo ñuy wax ci loolu en rapport ak feebar bi parce que dañoo gis ni euh, ñi muy gën a lottal mooy soit ay mag walla ñoo xam ne dajale nañu ay feebar yu bari yu nekk ci ñoom. Mhm. bon le décalage il est de l'autre côté de la planète ah <laughs> décalage bi gudd na trop est-ce que dégg nañu. Euh, ah, euh, Abdoulaye euh, malheureusement malheureusement dégguma dégguma question bi bu baax. ay c'est dommage wax dëgg yàlla ndax dafa am dafa am problème son. c'est dommage am na ay quelques bribes yu ma ci dégg rek. yu mel ne dafay wax ci mbirum. Euh, âge physiologique maanaam di comparer ñi nga xamante ne par exemple dañuy am at yu yu yu yu bari du feeñ ci ñoom. c'est ça euh, contrairement ak ñeneen ñi nga xamante ne ni ñoom euh, mën na feeñ ci ñoom defe naa ni dégguma question. c'est ça c'est ça c'est exactement ça loolu la c'est exactement ça. décalage bi tey moom dafa dafa sori sax. oh là là oh là là dégg dégg dégguma de. waaw mais loolu la c'est dégg li nga expliqué noonu loolu la loolu laa doon wax. dégguma de Abdoulaye. Euh, la régie on va le prendre au téléphone ça va être plus simple on l'a déjà vu on a déjà vu euh, <laughs> son visage mais c'est important pour ñu dellu si ak moom <laughs> ci côté boobu si vous pouvez le faire comme ça on le prend au téléphone ça va être plus simple parce que j'aimerais vraiment qu'on l'entende sur ça ak euh, point bi nga xam ne ni mm-hmm. ci la ñu nekk nii alors de dernière chose enfin pas dernière parce qu'on n'a pas Euh, ñi nga xam ne aussi ñooy rax ci yëf yi di gën a compliquer la situation bi parce que am na ndaw soo xamante ne nii euh, cas contact la ñu dem jëli ko vraiment chez elle xëy na sax diisoon na ko pour mu nangu ñu yóbbu ko mais ci procédure yi nga xam ne moom la ministère de la santé taxawal borom këram moo am feebar bi ñu jëli ko def ko cas contact pour yóbbu ko vraiment mu xam ni dafay tëj këram wax ni quand bon fi mu dëkk foofu xëy na problème sécurité am na fa mu tëj kër gi waaye nag ginnaaw nañu ko dajji kër gi vraiment caxat caxate ko yóbbu ay bijoux ak yooyu yëpp gis ngeen image yi ci journalu 13h bi loolu aussi vraiment nañu dimbalante xoolal li image yi xam nga ni dugg ci këram toj kër gi dajj boîte à yi lépp yóbbu ko mu ngi moom ñëwul sax ba léegi pour constater en fait on lui a envoyé les parce que moom. ca fa ñu ko euh, confiné ci hôtel ba ñu ko kii effectivement autorité sanitaire mënuñ ko bàyyi muy dem parce que dañ ko considéré comme cas contact foog ñu saytu vraiment lii aussi ñii ñook ñi texet bañ a dégg feebar bi ñoo yem parce que ñii dégâts te kër goo xam ne nee nañ la ñi fi nekkoon xëy na dañoo am doomu jàngoro yow ngay dem foofu xëy na sax mën nga faa jëlee doomu jàngoro gën a lor sa bopp def naa ñii moom est-ce que am nañ lu ñu leen di wax mm. <laughs> professeur Pape Ibrahima ñii luñ ñii luñ euh, leen mën a wax xam ku ku nekk ak sa métier ci li ma la wax ci bi may door rek ñun ñëpp ay soldats yoo xam ne dañuy xeex coronavirus bi la wante damay yaakaar ne xëy na war nañu renforcer sécurité. Euh, pour ñu demee ni soxna si lii dama ko mm-hmm. xool sama yaram daw trop mm-hmm. parce que jigéen ñi seen économie yëpp ay bijoux lañ koy def la plupart du temps may yaakaar ne bu ñu jëlee nit pour confiner ji ko mm-hmm. damay yaakaar ah xawma parce que du soo war nañu jël promettre alors pour yóbbu ko sax en réalité la vraie histoire pour yóbbu ko mhm. promettre nañ ko ne dinañu sécuriser sa kër loolu nag moo tax may wax man finalité ba nag waaw mais finalité ba aussi mhm. ci lu ñu jot a taataan ci RFM parce que mhm. ñaari kër yi benn la préfet bi nekk foofu nee na moom wax dëgg fa yàlla ku ñu confiné mu jox la sécurité pour sa kër attanu ko mënu ko bon xam nga nag. Eh, loolu mooy difficulté xëy na stratégie. stratégie de riposte bi. loolu ah. moo tax may wax ku nekk ak sa métier man sama métier laa xam ni xëy na ñoom loolu mu la préfet bi wax noonu xëy na loolu mooy situation bi. mais man ci sama xel mu gàtt rek dama doon science ne war nañu mën a sécuriser. waaw wax dëgg nit bu nekkul këram ci situation bi. surtout kenn nekkatul ci kenn nekkatul fa loolu laa doon xalaat mais. Mhm. comme loolu mu wax noonu man bëgguma mhm. empiété ci seen seen liggéey loolu daal mooy sama xalaat ci affaire bi. Euh, loolu day remettre C'est-à-dire qu'il faut toujours, devant cette épidémie-là, épidémie bi, mhm. il faut une action multisectorielle. Mhm. C'est-à-dire aucun sec, sec, benn secteur. Mhm. benn secteur waruñu ko négliger. cest dire que loolu moo tax loolu moo tax su fekkee ni fi ñuy euh, concerté pour defar ay stratégie il faut ñëpp toog foofu. kii mu ne ah sama pape Ibrahima nga waxee ma ne lii mënul nekk parce que tel tel lii dina am est-ce que su est-ce su ma defee lii su ma jëlee telle personne kan mooy assurer la sécurité réglé nañu lool ainsi loolu mooy tax ni que les populations puissent adhérer mais sinon suñ ko gisee nii ça ça risque de poser problème et peut-être aussi peut-être euh, man sama benn professeur dafa ma doon wax benn jour mu rek dafa amoon par exemple cinq aveugles ñu ne mu ne cinq aveugles yi nañu nañu ñu laal benn animal. Mhm. léegi nag après ku nekk laal kii laal génn gi kii laal pàcc yi kii laal corne bi kii laal nopp bi kii laal léegi mu leen dem leen di may toute la journée ngeen ku nekk dem këram après ku nekk ñëw wax ma animal bi. donc mhm. ku nekk ñëw bi ñu toogee tout la journée. ñu wax leen ñu ñëw ku nekk wax daal mais du animal bi mu leen léegi dem leen di may trois minutes cinq minutes ngeen dugg sama salle bi toog foofu. ngeen discuter après ngeen ñëw wax ma. Hmm. Hmm. trois mille ñoo ñu leen noonu lii ñay ñay ñay loo. bi ñu confronté ñoom bi ñu toogee ce qui dit que c'est kii ne tànk bi ma laal tànk lii la kii ne ah, man laal naa trompe kon ñu hmm. daal di daal di dajale idées yi. mais loolu nag moom mooy action multisectorielle tant que defuñu ko nag. ça va être très difficile chacun va dire que oui man dañ ma wax ni naa dem jëli moom day ki dem di jëli agent day dem jëli rek peut-être la sécurité c'est pas son problème. mais mais dañoo gis ni parce que aussi mun nañ ko wax jotaay bi vraiment jot nañ fi gis défilé beaucoup de corps de métier ak mm-hmm. yoo xam ne ci réposible lañ nekk mm-hmm. souvent nit ñi bu ñuy ñëw fii intégré wuñ leen sociologue yi c'était leur cas vraiment bi bi ñu xellee fii li ñuy xelli la ñu xëy na dugal leen woo leen relais communautaire yi pareil pourtant ci ministère yi la ñu dépendre mais ña leen yilif dugaluñu leen wala seen kàddu joteewul bàjjanu gox yi gis nga ko bon ba moment boobu xëy na am na loo xam ne jëflante guñ ko woon ak moom seetaan leen ba mënu ñoo dugg ci xeex bi tey xeex bi dellu na ci communauté bi ci société bi président de la nag mën nañ ko déggal wax bi mu wax parce que bi muy recevoir nit ñi ci conseil présidentiel ba la mu waxoon équipe médicale bi mhm. ne leen lu mu laaj mhm. ci xaalis dinaa ko ci def mhm. defe naa ni loolu on peut le prendre au mot ci lu mu laaj ci xaalis ñu def ko ci parce que lii bu fi jógewul dara dootul léppay tënku activité du am ci ci suñu métier yi ñun loolu la ñuy wax euh, dañuy wax dañu war a bannir multidisciplinarité ak pluridisciplinarité c'est-à-dire que malade bu ñëw nii ñu war ko faj mu bari ay jàngoro yu bari du ñu ne kii day ñëw faj lii après bàyyi kii dem faj lee kii dem faj loolu mooy hmm. multidisciplinaire wala pluridisciplinaire loolu dañ ko war a bannir dañuy def lu ñuy wax interdisciplinarité interdisciplinarité hmm. mooy ñi ko war a faj yépp toog ñu ne kii dañ ko war a faj lii la am lii la am lii la am man lii sama xam-xam yow lii la sa xam-xam yow lii la sa xam màcce mais dañuy xool kan mooy njëkk a commencé lu tax mu war a njëkk a commencé buy faj yow leneen loolu lan ngay def man damay yaakaar ne ñii di intervenir ci affaire bi yëpp dañu war a def espèce interdisciplinarité di xàccee xàcceendoo di su ñu ko defee dana éviter problème yu mel nii mais kañuy teg foofu pour mu xaar Euh, ci pour dellu si ci affaire ndaw si parce que affaire ndaw si dafa ma mhm, xaw a choqué soxna soosu mhm, affaire soxna soosu dafa ma xaw a choqué du forcément policier mooy nekk foofu mhm. mun nañu gis waxambaane ci koñ bi ku ñu wóolu ñu ne ko yow la ñu dénk fii ba est-ce que mun nga xaar xaar xaar sa kër <laughs> tante bi ah ba ay fan mu di mu di ko xaar ñu di ko andil añ di ko andil reer wala ñeneen dañuy gis ci quartier yi xale yi dañuy organiser wu mais loolu yëpp il faut que coordination bu mhm. am dafa am importance ci action yu bari mhm. quoi mhm. parce que lii suy am effectivement nit ñi dañuy xel di commencer bañ euh, bien sûr ñu ber leen yóbbu leen def naa la ñu la doon am ci comité de quartier yeeg euh, ay notables yu ci quartier yi nit ñi ñu déggal ñoo ñëpp am nañu solo ci xeex bi. ñëpp am na relais yëpp. sëriñ yi nañ ci wax. c'est toute actuellement santé bi loo tax ma ne santé bi faut que communauté bi ñu jégal ko communauté bi. communauté bi rek moo ñu mën a waxuma épidémie rek épidémie bii mais li ci santé bi yëpp c'est c'est la communauté luñ ci jàng tax ñu ne de plus en plus que ñun dañu war a ak dañu war a génn suñu génn suñu quatre murs yi accompagner la communauté pour que communauté bi mën sa santé sinon suñ deful dañuy dañuy daw ci dañuy daw ci feebar yi rek et cetera donc c'est c'est c'est ça maintenant la logique dans tous les pays du monde maintenant mm-hmm. c'est la logique quoi il faut que ñu mën associer communauté yi mm-hmm. suñuy wax di waxtaan ak communauté yi Euh, amoon na fi benn programme peut-être président Abdoulaye Wade moo ko programme euh, les médecins sans blouse. Mm-hmm. dañuy mooy suñu bari wax comité parce que souvent comité duñ duñu xam par exemple euh, su fekkee da nga ñëw nga am sa tension mais su ma ñëwee sa kër naa ne ah tension bi lii moo koy indi lii da nga ko war a moytu soo yëgee lii c'est dangereux lii soo yëgee lii sa sa dënn méttee fii su méttee nii dawal bul xaar kenn dawal ñëw hôpital en fait il faut ñu transférer suñu connaissance ak compétence bi. la communauté communauté bi mais sinon on va rester dañuy am benn décalage entre ñun ak communauté bi et ça va être difficile à gérer les problèmes de santé. est-ce que déconfinement wala boog delluwaat ci activité wax nañ ni école yi le 2 juin sori na xëy na waaye lu ne xaj na ci mun nañ ci liggéey ci ay perspectives yu optimiste pour euh, jàngoro ji jógewul it doole ji wàññeeku ba xëy na eh, eh, mais naka la ñuy génnee sax ci jàngoro ji parce que jàngoro boo xam ne boo ko jeexalee yow sa dëkk te sa voisin jeexalu ko du jeex mm-hmm. te law na ci àdduna bi yëpp mm-hmm. euh, cest à ci yan perspective la ñu nekk pour ne ñun dina jeex ci àdduna bi wala dina jeex ci suñu dëkk euh, <laughs> yan perspective lañ nekk man je pense que perspective yi en tout cas ci man ni ma ko gisee mm-hmm. mooy apprendre à vivre avec le virus dama koy tekk ci wolof jàng nu ñuy def ba dund ak ba dund ak bi jàng nu ñuy def ba dund ak virus bi parce que li ma gis nii. professeur ñun virus bi dañ koo seexlu bëgguñu. non dañ ko seexlu wante <laughs> dañ ko seexlu wante bu ñu bëggee réaliste rek. Uh-huh. mun nañu prévoir ne dana fi xaw a toogaat xëy na tuuti toogaat tuuti bi du gravité bi mun na wàññeeku. mais léeg-léeg benn nga am benn cas fii tey toog ñetti fan nga am ñaari kaa toogaat ñetti fan loolu xëy na du mën a ñàkk. loolu moo tax ñun ñëpp defe naa le monde entier il faut ñu changer paradigme. jéem a jàng nu ñuy dundee ak virus bi soo ma mayee rek ma dellu si par exemple ci suñu mhm. protocole bi. fa la ñuy jeexalee fa la ñuy jeexalee xam nga mhm. ñun boori entre le 19 et le 25 mai génne nañu benn protocol mais protocole boobu ñu ngi ko conclure en 10 ans recommande ces recommandations sur la base euh, sont élaborées sur la base de connaissances disponibles à la date de publication de ce protocole c'est-à-dire que bi ñuy def recommandation yi information yi amoon mooy Sénégal mhm. fanweeri. ci contexte bi ngeen ko ci contexte bi lañ ko defoon. léegi contexte boobu dafa changé. Mhm. te munuñu comme li nga ko wax continuer tëju nii rek quoi il faut ñu continuer pour pour ñun ñëpp laa wax nag pour àdduna yëpp. Mhm. il faut que suñu suñu commencer euh, déconfiner. Mhm. dund mais loolu moo tax ñun xam naa ne danañu élaborer ci fan yi di ñëw ci jours yi ñëw peut-être beneen protocole. protocole bu nga xam ne mooy gën a ànd ak li ñu nar a dund. ah mais dee leen projeté wu nag parce que protocole bu ngeen ko defee mu statique rek ci contexte bi. xëy na ci contexte ci contexte virus bi li ñuy wax. Mm. SARS-CoV-2 parce que mooy mooy mooy virus bi mm. en fait. Mm. bi joxe affaire bi ci contexte bi dafa jafe parce que chaque jour. dañuy am information yu bees. yuy contredire li fi amoon. Mm-hmm. moo tax gis nga gouvernement yu bari ñoo xaw a jànneex xool mm-hmm. France. ñu ngi jiñ seen gouvernement yi parce que en fait amuñu woon information yu wóor yu taxaw. Mhm. information yi day changer dama la wax même ci physiopathologie. garab gi sax euh, feebar bi sax. professeur est-ce ñu xaw daal parce que dañu doon dañu doon ci tàmbali bi. ñu mhm. jeexalee foofu parce que waxtu yi jeex na. Mhm. ci stratégie bi dañ doon confiner ay nit yoo xam ne sax feebaruñu. exactement ñu njortee leen feebar. tey gis nañu affaire yi di déborder di déborder di déborder ñu continuer wàll boobu ba ñu dellusiwaat ci. finalement ñoo xam ne nii feebar nañu sax. ñu delluwaat ci communauté bi. voilà ñu war leen a ñoom hospitaliser à domicile euh, ak ak des conditions bien entendu cest dire doon tënk koo xam ne nii feebarul. finalement yëf yi débordé na de telle sorte ñi feebar sax léegi dañ leen naan toog leen seen kër fa lañ leen di fajee. mais loolu buñ ci mere kenn waaw dañuy adapté wu buñ de de de des personnes qui prennent les décisions. Mhm. Euh, information yi kenn mënu ko. amu ko woon te kenn mënul projeté wu en avance. Mhm. ak virus bi chaque jour lu bees am. bien man bu ma toogee fii di la wax tey. dama lay wax ne la xëy na li ma lay wax ni tey dans 15 jours soo ma invité waatee du ma wax loolu xëy na parce que affaire dafay changé fondamentalement mhm. dana des mais am na yoo xam ne day day changé. merci beaucoup professeur Pape Ibrahima Ngom chirurgien dentiste universitaire <laughs> defe naa ni booboo leen gënal ñoom ñaar ñëpp ma présente leen comme ay universitaire professeur Ousseynou Ka. man ci communauté bi laa a <laughs> moom toppatool suñu mag yi suñu mag ñi baax nañu fi nañ leen toppatoo def naa finalité waxtaan bi mooy ñu bàyyi xel. mag ñi mag ñi xam nga génnuñu sax du mag ñi ñooy génn du dox yi mag ñi moom génnuñu ñoom xëy na ni ñuy wax virus bi demul fenn mais mag ñi ni nit ñee leen di indil virus bi te vraiment li ci daanoogum ci ay mag hmm. parce que plus de soixante ans rek ñoo fi ñoo fi génnagum àdduna pratiquement te loolu war nañ ko bàyyi xel aussi vraiment mais même ci communication bi mën nañu utiliser mag ñi am na am nañ am nañ ay kuréel am nañ ay ah. association mais mën hmm. nañu utiliser li sa li ñuy wax communication par les la communication du jóge ci kaw di wàcc mais c'est la communication entre ñoo xam ne ñoo bokk génération euh, am nañu association et puis c'est très important. professeur Ousseynou yow amoo accès ci comité bi pour wax leen li ngeen ni wala am na ay pour egg ci ñoom. loolu man à travers observatoire bi certainement. ngom ngom xanaa ngom sama grand ngom quoi. <laughs> d'accord <laughs> bon on était très on recevait d'ailleurs deux amis deux promotionnaires parce que fàttaliwaat ko ñoo bokk. at bu ñu dalee université Cheikh Anta Diop faculté de médecine ba tey ni ñu koy kon lu yàgg dëgg la. Mm-hmm. ñaanal leen yéen tamit ah. ah bon vous n'avez pas beaucoup de vous êtes encore relativement jeune <laughs> donc ngeen euh, ñaanal ngeen yàgg fi bu baax a baax a baax. Ah. di nuyu seen waa observatoire boobu. lii aussi c'est très important parce que observatoire bi. Ah buñ ci jukkee jël ci ay borom xam-xam je pense que c'est très important <laughs> parce que mënoon nañ nekk di wër borom xam-xam fu nekk. di leen génn seen laboratoire yi aussi di bokk <laughs> na buñ ci sukkandikoo rek lu bëri dana dem waaye nag ngeen génnee ko ci laboratoire teg ko ci penc mi <laughs> <laughs> merci beaucoup demain incha allah demain attention 16 au lieu de 16h30 heure euh, ramadan ak dimanche ak euh, voilà tout le programme euh, du dimanche merci beaucoup